abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci dikkati naa wure wa dem na kan waxi mag dem na ndaa daali le peuple quotidien nam ab juriste français xamle na ni président Macky Sall mbii ndëndëm gi baax na man naa samp ci réew mi président Macky Sall candidat la tribune yéen a kaay ne ko déet na wax ji leer président Macky Sall moo jagat-jagati jóge fii Sénégal dem ba réewum France jëlee fab nasaraan soo xam ne ab juriste la ne ko kaay wax ci candidature am bi yéen a kaay bi ne force la moom Sall nag daf ñoo bëgg forcer candidature am gii ci élection présidentielle l'observateur ne ko déet élection yi kay boo moytul dañ koy dàq ba jamono neex ndax dialogue bi nag boo moytul ci loolu lay tënku tribune yéene kaay naan kon dialogue la may ma mama yigli xamal la ni président Macky Sall ma ne la dafa jagat-jagatee wuti ab juriste français juriste boo xam ne moo nar a forcé ñetteel bi candidature am bii moom président Macky Sall ne fi ñu ko yàkk bu nakari set sage yi wuti ab kàngamuk nasaraan boo xam ne Guillaume Drago la tudd moom Guillaume googee naan kon Sall doxalal xalal nan la yoon wi ma ne la doxalal mën nga doonaat candidat ci réewum Sénégal Sénégal yéen kaay bi dee média bi naan man moo taxit laaj ya samp bëri lan moo tax nag moom président Macky Sall dem wuti bitim réew koo xam ne moo naan kon yow président sénégalais bi mën nga doonaat candidat ci loo xam ne ma ne la cartum réew mi leer na ci président ki Sall waat nga ñaari yoon te sunu cartum réew dafa nekk waat ñaar yoon mënoo waat ñett juróomi at ak ñeenti at ak fukk moo ci yam tribune yéen kaay nan kon say mandat jeex na na leer 24 heures yéen kaay naan Cheikh Tidiane Gadio ma nga jox président Macky Sall siis naan kon kor Marème kaay ma yedd la xam nga buntu bi moo gën jaar ci porox ndoll gi di fenêtre wi boo bëggee de ci taarix sàll bàyyil balaa ñuy seppi sab loxo ci ndab li ñii nga àndal ñu naan laan say mandat jeexul sa xel wi la ñuy fawe de bu leen lu demal tribune yéen kaay naan maan Matar ba ci TLV ba ñu ko invité woon ak Fabrice Ngema dafa ni président Macky Sall ma la bu jeexalee lay dem tribune yéen kaay mel ni ku naan ko wax nga wax ji président Macky Sall kay sénégalais dañ ne ko ci ñaari mandat lañ ko fal fal nan ko ñaari yoon wàccoo nañu yóbbal ak na dem réew bi ko dajee naan Gueye wut na ab juriste ca bitim réew bu koy dëggalal candidature am bi yooyu le présidentiel Robert Bourgi ci Dakar Times naan boo maytul Khalifa Babacar Sall may Meïssa Wade bokk ci ndax nag la leen di teree bokk ci réew mi dañ koy faxas mu dem turbine yéen kaay naan maan lépp ci dialogue dil bi la fanweeri fan ci weer wii lay daal di am te dialogue boobee ñu bari ci l'opposition bi nee nan Sall accam bugguñu ñu l'observateur mel ni ku naan ku gedd sa yaay aye ndax dialogue boobee fas nañ fa waxtaanee luy dàq présidentiel ba jëmmi jamono turbine yéen kaay naan bi ñu bokkuñu demuñu président Macky Sall moom na able rek source a naan maan Ousmane Sonko sonn ci réew mi wala xeer yaa ngi koy dalee fu ne moom Ousmane Sonko direct news naan maan Idrissa Seck Thierno Bocoum ak Victorine day Dey caxat caxatee nañ Sonko ba maar day taali yéene kaay bi jox kàddu Idrissa Seck mu naan Ousmane Sonko xam na ni waxul dëgg te képp koo xam na yaa ngi wax lu dul dëgg mbugalum yàlla subhaana wa taala dina tàbbi sa kaw wala bu nekkul woon jafe-jafe yi nga ne mi ngi koy dund moom Ousmane Sonko idée wax ca bii boor Mame Mbaye Niang di ko pakete ndax nee na daf koo koo sosal beneen boor ab xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ne Ousmane Sonko da koo sàkku Idrissa Seck naan Ousmane Sonko dina ma dégg wala Thierno Bocoum naan ak liñ fi wax lépp ak liñ la jagat-jagatee yóbbu yoon yépp Thierno naan kon tegoon naa ni boo ci jógee yow Sonko di nga suppiku Victorine Ndey naan kon man aw ma doole jumat ndax nit dong laa rax ci dolli di soxna lépp loo xam ne ab kàcc la gu diis gann dëgër këcc mënuma cee taxaw fexe ba nag du jib waaye mën naa fexe ba sama tur génn ci yooyu le kàcc sursu naan man Idrissa Seck ngay wax Ousmane Sonko bi yeew bëccëg Victorine Ndeye di ko tuñ-tuñee fu ne Abdou Karim Fofana ñëw ne leen may doggali xamal Ousmane Sonko ne ko bu dee dangaa bëgg nag andi fi trouble à l'ordre public caxat caxatee réewum senegal daal di koy jaxase takk der yi nga xam ne sunu kaaraange moo leen tax a jóg daa ñu def la nga xam ne yoon sant na leen ko ci ñun moom moo dina nag maintenir ordre public bi te day jaaree ci Ousmane Sonko xamal la ni réew mi dëgg-dëgg réewum yoon la te yoon a koy doxal Robert Bourgi di Dakar Times naan man la Ousmane Sonko xanaa dafa gën fukki million ak juróomi sénégalais yi nga xam ne saa bu leen yoon woowee war nañoo dem wuy ji te naan Mélenchon dictateur yi lay jàppale naan it avocat bi Juan Branco mënta yëngal gësam guyug Sénégal day wax wax bàyyi critique yéen kaay naan en tout cas Ousmane Sonko ma ngay nooyal mbaadu nag dil dafa am diggante ma nguurug Sénégal ba Sonko ne damay wuy si nguurug Sénégal naan kon ñëwal daañu la jàppale ngir nag dal ak stabilité daal di am ci réew mi le quotidien le quotidien daal dina ko déet moom kay nguurug Sénégal Ousmane Sonko dafa tegi condition daal dina wër ndomb giñ def këram na dakk waaye waaye tam nañ ko bàyyi mu daagu jaar fa ko neex jëm tribunal nguur gi ko du am ma ne la fa ñu bëgg ngay jaar te daa nga wuy ji convocation bi yéen kaay bi ne ma Ousmane Sonko jot na ci bu yàgg l'enquête ko di jee naan man fi ne daal Ousmane Sonko de sa ki responsabilité am ndax la mu mattoon bàyyi na ko ne dina wuy si teg ay condition am nguur gi ne du ca dal woote résistance justice na ñëw ak ñàkk ñëw fi ne agenda ba moom dañ koy déroulé atte rek Abdou Karim Fafana ci tribune yéen kaay naan ma ne Ousmane Sonko mooy kan bay tegal ay condition attekatu réewum Sénégal yi ak yoon demee bay tegi garantie ak i condition ñàkk nga confiance ci sa bopp Abdou Karim Fofana naan kenn laandi la duñ ko bàyyi muy caxat-caxatee réew mi te ku jàpp ne fi mu ne mën ngaa caxat-caxatee réew mi day yaa ngi nax sa bopp l'évidence yéene kaay naan man cey Ousmane Badjo bi daal dinay déstabiliser Idrissa Seck Idi daal di yëngu daal di énervé Walf Quotidien lépp ngi bàyyeekoo ci émission bi nga xam ne moom Ousmane Sonko def na ko ci télévision bi yëngal na gësam moom Sonko yëkkati da nii booba Sall ki ñoñam ña ngay doxal le point yéene man Pape Modou day daal dinay tax ba élèves yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci Mbàkke daal di dem yëri la nga xam ni mooy réalisation sàll yi jaare ko ci TER ba ci aéroport international Blaise Diagne dem ci daaray kawe yi sphère ministérielle yu jam ñaajo stade maître Abdoulaye Wade parc industriel bu Sissaat ak lépp wër nañ ko dem nañu xool PSC bi nga xam ne doon na bi nga xam ne suqali na réewum Sénégal le point ne ma papa Modou Fall wan na ndongo Mbàkke yi la nga xam ni sàll ngaari lam tooro buur gën na ko ci réew mi yéen kaay bi naan man tollu téeméer ci casque ndaw yi naan leen liggéey leen te bàyyi xeex bi turbine yéen kaay naan man xeex bi fi mu ne mi ngi ci union bu chambre de commerce yi nekk ci réew mi Abdoulaye Sow la ñu tuumaal ne dafa bëgg def forcing ngir jiite kuréel gi lépp loo xam ne yoon teg na ko ci loolee mu daal di jagat-jagatee teg fee ndaje boo xam ne moom sëriñ Mbuub teewu fa 2010 ma ne la élection yi gëj a am te ba ñu tabbee koy jiite woon cour suprême daf ko tàbbal géej tey jii nag ñu daal di defaat forcing goo xam ne nee ñu Abdoulaye Sow day taxaw ci anam woo xam ne jaarul yoon président yii di Serigne Mboup Moustapha Cissé Lo ak Mamadou Ndiaye di ko naqarlu te naan fi mu ne yoon dong lañ bëgg ñu daal di koy doxal waaye xëccoowun ca lenn ñu bëggoon def forcing boo xam ne mujj na tàbbi géej ndax nag dañoo mujj génn saal ba daal di gedd déjjati gën fa bëggoon déjjati daal di tàbbi géej libération yéen kaay naan maan leeralal sénégalais yi ñu xam ne nag dëgg-dëgg naxee mbaay gi ci réew mi doy na waar yéen kaay bi naan maan ay étranger ñoo jóge seen réew ñëw ci Sénégal naan CF banque Sénégal lañ taxawal ay GIE ak yeneenu kuréel yoo xam xam ne ñu ci réew mi ñu dig leen leble ay milliards ñu yëkkati ay millions daal di koy jébbal ñaari nit ñaar ñooñee dëkk ci l'hôtel goo xam ni naxee mbaay la fayuñu ko luwe ay bureau yoo xam ne naxee mbaay la fayuñu ko luwe it ay woto yoo xam ne naxee mbaay la fayuñu ko bu budul woon ak DSC ñoom ñaar ñëpp daañu daw ak i millions sénégalais yoo xam ne dañu leen nax ci leble ak lu mën a am na ñu teey te xam ne dëgg dëgg dëkk bi dafa jaxasoo ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm